xaw nu ma daane man man damaa làmbatu ba daj rek. non da nga jàpp jël tànk. damaa jël tànk. wala bi def na effet bu ko dindi. kaani la du dugg fii. yow ah maa bëgg a rey. woo ma jàpp. da nga siy dogal dama kaa fàtte dama ne dañ siy dugal kaar moom a dugal booy fii booy même sama jàmm booy loolu sa yoon nekkul bi ma nekk mooy sama huitième combat ñaata victoire trois défaites cinq victoire waaw mais yoon nekku si eh, eh, eh, i jëm ci sa bopp xaar la journée Modou Lo damay bëre si na ko ñëpp xaar waaw incha allah ayi sey junior xaw ma fayam